madalana al-islam wal-mutamaha wa bin-nasir tàbbi ci liggéey bi nga xam ni moom moo ñu fi dajale tey muy ngontu soxna jaare yi mu nekk loo xamante ni yàgg nañ ko amal ci daara yi nga xam ni ñoom ñoo composé fédération bi ba tax na tey ñu daal tase fii ci lycée technique fas ne amal waxtaan bu yaatu ak suñu mbokk soxna yépp di leen ziyaar yéen tamit di leen wax ahlan wa ci daara ji wante le temps boobu damay daal di présenter samay invité rek balaa ñuy tàmbali liggéey bi ñu amal leen thème bi nga xamante ni moom mooy vie et l'œuvre de Soxna Maam Jaara et les enseignements à tirer maanaam ana naka la Soxna Jaara la Turaay daan dundee ak yan leçon lañ mën a tirer ci loolu buñ jugee foofu beneen thème bi dañu daal di am la femme et l'islam et la femme en tant qu'épouse maanaam jigéenu jullit ana naka la war a comporté en tant que soxna ak jigéenu jullit ana naka la war a comporté woo ci société bi ñu nekk damay daal jox nag soxna maam jaara mu présenté wu suñu paree daal dalal soxna joor soxna awa ak soxna maymuna soxna jaara bismillah rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu yëpp di yéen ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal xalif général des mourides sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak wér la di ñaanal xalif général des Baye Fall sëñ Amdi Mouride Mbenda di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naan bi mu naalal maam ji maam maamam ji di maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal itam suñu wasila Cheikh Moustapha Fall yaa xam ne mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di wax jërëjëf Sëriñ Touba bàcc maam Cheikh Ibrahima Fall lam jërëjëf borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall lam jërëjëf borom Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi nuyu yéen ñëpp wax ne tey dañ leen a indiloon waxtaan soxna jaara kan mooy soxna jaara jaara ñu ñu gën koo xam ñu ngi koy woowee soxla jaara muy maanaam jaareetul laay maam mooy dëkkaale yàlla waaye turam dëgg maam Mariyaam Buso la lu indi dëkkaale yàlla boobu nag ndax da doon jaamu suñu borom saa su ne mu ko doon jaamu di ko wéetal moo ngi moo ngi gane àdduna si atum 1833 en go goleere ci goleere goleere nag euh, ci jolof la nekk jolof ci fuuta fa la nekk wéjuram bu góor mi ngi tudd Mouhamad Buso wéjuram bu jigéen mi ngi tudd soxna astawaalo Mbàkke soxna jaara euh, euh, sët boo xoolee sax sëtu sëtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaxte Muhammad Buso muy baayam ma Buso Awa Mbay mooy baayam ma Buso Awa Mbay moom ma tabaraay baayam ma tabara am maata ko jur boo toppee càllale dalay yóbbu ba ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom nag bi ginnaaw ak ganeek àddunaam wéjuram bu jigéen moo ko moo ko jàngal xam-xam moo ko yar jàngal ko liggéeyu jigéen yépp yépp lu jigéen war a war a war a def ci ci ci biir kër wéjuram moo ko jàngal jàngal ko alxuraan am tamit daan nañ wax ne même wéjuram bu génnaan soxna jaara moo moo daan wàccu daara ji di jàngale alxuraan moom bi mu amee fukki at ak ñeent maanaam 14 ans ci la tàmbali di dund tasawuf comme ni ko góor yàlla defee comme ni ak soxna yu baax yi nga xam te ne ñoom noonu lañu ko doon defee moom ci la tàmbali di dund tasawuf di def ay naafi la jàng alquran chaque matin chaque suba nee jàng subumu si si alquran nee nañ dimanche da daan tàmbale kaamil mu jàng maayidaat ba yunus taraatal mu jàng yunus ba lisraayil mu jàng lisraayil ba soxraayil alxamis mu jàng soxraayil ba sirafaati ajjuma mu jàng sirafaati ba majiidi euh, euh, gaaw bi muy euh, muy samedi bi mu jàng majidi ba ba naas gaaw boobu ci la daan tëj kaamil bi euh, dibeer bi mu tàmbalewaat kaamil bu yees dibeer dibeer bi ñu ko xamul mooy dimanche soxna jaara moom tamit ku ku ku ku maam ku fegu woon la ku fegu woon la maam nee ñi ñu koy nataalee ci nataalam maam mooy photo ñu ko xamul ñu xamul nataal mooy photo ñi ko ci nataalee ci nee ëppoon na jum ndax nee ku amoon jëmm la woon macha allah. ku amoon jëm la ku taarul woon ndax ñeneen suñu borom su loo su la bëggee la bëggee may dara makaama ka taar la lay may daa taar woon loolu amoon jëm loolu macha allah soo raja ñeneen mooy soxna yi ñu jamonoonteel nga xam te ne boo nekkee soxna nekk ndaw di nga am soxna yoo xam te ne ñoom nga jamonoonteel ñooñu dañ koo bëggoon lool ngir ngir ngir baaxam gi ak yaram gi dañ ko bëggoon loolu daan bëgg di di foo ak moom chansonné waaye wee juróom bu bu bu jigéen di soxna Asta Walo Mbacke daka daan daka daan tere daan téye ndax bëggul woon mu comme soxna yooyu moo tax da daan téye di ko daan ko tere foo ak yooyu doon moo tax léegi bi ginnaaw nag bi mu tollee ci ci dem kër ñu ñu jox ko ci yow nijaayam koo xam nijaay si moom mooy Mamour Anta Sali mooy sëñ Mamour Mbacke ñu koo xam si Mamour Anta Sali Mamour moomu nag bokk na ak soxna jaara parce que nijaayam nijaay la ci moom ndax maam Mamour Anta Sali maam Balla boo ko jur te maam Balla moom maam Maara ma ko jur maam Maara moomu. maamu soxna jaara la ndax soxna jaara soxna astawaala moo ko jur soxna astawaala ahmadu soxna busa moo ko jur so ahmadu soxna busa moom maam maara moo ko jur kon ñu xamee si loolu ne soxna soxna astawaala ak maam moor anta ay mbokk lañ ñu ëlbatiku jox ko soxna jaara léegi may jox ñu ko jox maam moor anta sali mu dikkee mooy ma soxna anta njaay ku ne xam ne moo nekkoon soxna si maam moor anta sali moo nekkoon maam bu ñu koy misaal ci jamono ji ñu xam moo nekkoon aawam moo njëkkoon nekk ñëw ci kër ga mais bu mu ñëwee xam ne Maam Mor Anta Sali góor yàlla bu baax la te ku ku ku doon soxnaam di fa am ay tout tànk yu am yu am barke wala yu taw feexe mu yéene barke boobu nag mu yéene ci soxna yu bari soxna su baax te juddite yéene na la ci ak soxna soo ne am nga juddu gu rafet ginnaaw bu mu xoolee loolu ci la dem ci soxna astawaala soxna astawaala sax ak soxna Anta Ndiaye soxna Anta Ndiaye ay wokk lañ ndax soxna Anta Ndiaye soxna astawaala moo ko yar ba ci këram bi mu màggee ci la ko may Mamour Anta Sall léegi ginnaaw loolu ci la soxna Anta dem ca soxna Astawaal ne ko kat comme soxna jaaram yi yaa ñu bokk yaa ñu bokkoon yor ci ci biir kër gi mu nekk doom ci man te soxna an soxna jaara la woon si soxna Anta boo boo xoolee li ñu bokk woon ci moom mu ne ko comme soxna jaara doom la ci man dama koy jox mu yóbbul ko sama sang bu baax bee nga xamante ne këram gee gis fa lu baax te ku fa dugg di am lu baax soxna Anta Ndiaye loolu la wax eh, soxna Astawaal ne ko ah man kat kàddu gi soxna Jaara moo ko moo ko yor dama nga wax ak moom bu war a jóge Jolof dem Mbàkke Bawol ginnaaw comme ni ñuy def rek bu ñu la waree maye di la di la di la waral comme waral waral teg la ci digg kër gi di la yedd ak yooyu ne la boo demee defal nii defal nii soxna Jaara moom defuñu ko loolu waaye benn càmmiñam benn càmmiñam euh, sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Bousso bi càmmiñ la ci soxna Jaara mooy wéjuru Cheikh Cheikh Bousso ak sëriñ Mbàkke Bousso moom moo ni soxna jaara soxna jaara ba mu ne ko mu ne ko mambariyaam buso mu ne ko buso mu ne ko yaa ngi dem def li nga xamante ni sa sa wéjjur moom lañ daan def yaa ngi dem def li nga xamante ni say bàjjen moom lañ daan def yaa ngi dem def li nga xamante ni say say say nijaay ak say wéjjur wu góor ñoom lañ daan def te xam nga ni famille mba buso bi mi góor bu fi bu fi bu fi bu fi nekk rek nga xare ba ba faatu jigéen bu bu fi boo fi gis tamit ci sëyam la xare ba faatu kon da xas xasal maanaam mooy waxal li ngay def xas boo boo ko déggee mooy li ngay war a def sa kër wax sa kër borom kër wax ko léegi bi mu waxee loolu soxna jaara soxna jaara kàddu gi xaw koo laal mu daal di ñeneen ci la jug dem yeesal njàppoom dugg ci ci ci euh, ci néeg bi daal di génne téere alxuraan bi ginnaaw bi mu génnee téere alxuraan bi ci la ubbi daal di yem ci laaya bi ñu naan maakaana muhammadin aba ahadin min min rijaalikum wala wa walakin rasulillahi xaatim wa xaatimin nabiyin eh yow rasulillahi maa lay wax ne yow juróom kenn ci góor yàlla yi te yow yaay yonent bu ma mujjee yónni bi soxna jaara gisoo loolu si la tëjaat kaamil gi wax wax caam ñam googu ne ko man laay bi soxna suñu suñu borom wàcce moo ma jaaxal ne ne ki rasulullah yonent bu mu mujjee yónni wàcc na ba pare waaye bu woon loolu dinaa fa jur yonent waaye comme wàcc na ba pare dinaa fa jur koo xamante ne saa bu tuddee yonent bi tudd ko te wax jooju waxu ko waxu ko rek sànni bi mu ko waxee itam daf koo jëfee ndax bi mu ñëwee indi bi bi bi mu bi mu bi mu egsee si kër gi itam def na ko ndax nee benn benn naar boo xam te setu surtout rasulullah la woon nee nañ dafa mujjoon ñëw di ziar si sëñ sëñ bi sëñ sëñ bu baax bi borom Tuubaa bi mu ñëwee sëñ bi fatu léegi dafa foogoon bu ñëwee rek moom day gis sëñ bi nii ñëw rek gis sëñ bi léegi sëñ bi fatu ab diir mu léegi ne fatu boobu mu fatu moom mu yàgg ci kër gi te gisul sëñ bi xaw koo métti bi sëñ bi génnee mu tàmbalee di wax ne di ko di ko wax naan kan maanaam man gan laa boo xamante ni ku tedd laa te fu ma jógee dafa sori te boobu ba tey maa ngi toog di xaar te surtout yonent bi laa di lim ay maam di lim ay maam di lim ay maam ba gémmiñ gi du fur mu doog a egg si yonent bi bi euh, euh, bu mag bi sëñ bi daal di woo ñenn ci mag mag ñi mag ñi baax ñi mooy mag ñi baax ñi daal di ñëw ne ko tontul ma kii ndax nee na sëtu rasulullaay la te balaa muy balaa muy egg ci rasulullaay lim na ba gémmiñ gi du fur kooku ne sëñ maam euh, no ko kenn kooku si kenn kooku bokk si magu sëñ bi magi ci sëriñ bi tam tam waroon koo toon kooku ne ko yow jiw diw lim nga ba sonn doo ko yegg si sa maam te ñun ginnaaw rasulilaay rek ñun la ndax ginnaaw rasulilaay xaadimu rasul moo fi topp muridu laay topp kon ginnaaw rasulilaay ñun la kon loolu mooy firndeel ne waxu soxna jaare bi waxu ko rek wàccu ko dakaa wax jëfe ko nee na ginnaaw bi mu bi mu bi mu ñëwee ci ci ci kër ga ci kër ga bi ñu ko bi ñu ko bi ko muuree ba mu yekk si nee bi mu yegsee nee ba mu ba fa def ko ak diir nee nañ moo ko soxna Anta Ndiaye sax jokkalante nañ si ay kàddu maam toog di waxtaan comme ñoom meluñ ñu comme soxna yi léegi sama naar nga xam bu ñu toogee leneen lañu waxtaan ñoom dañ doon toog di maam seen def defantewuñ bu sëy bi nekkul def lu def safaan waaye ñoom def lu baax lañ doon lañ doon xëntewoo te nañ ko doon xëntewoo mooy jur ku baax léegi bi ñu toogee di waxtaan soxna Anta ne ko man dinaa fi jur asamaan ak ak weer dinaa fi jur euh, jant ak weer soxna jaara soxna jaara tontu ko ba tey dañu ko bu subaa naa la tontu mais bu doon sama genre bu bu ñàkk teggin gi si saas lañ lay tontu waaye dañ ko bu bu subaa laa lay tontu ba su bëgg jotee mu ñëw ne ko soxna Anta Ndiaye kat loo waxoon démb soxna Anta Ndiaye ne ko man dinaa fi jur jant ak weer soxna jaara ne ko man dinaa fi jur asamaan bi nga xam te ne moo tiim jant ak weer te loolu ku boo xoolee fii ne wax jooju mu wax dë dëggal na ko ndax moo fi jur koo xamante ne bu ñu tuddee Rasulullah tudd ko moo moo fi ki nga xamante ni jar moo jar ñuy ñuy ñuy raam di ko sukkal lu ñu am di ko jox di ñàkk suñu temps ci moom ngir bëgg ko kon xam nga ni kon Soxna Jaara waxam jooju waxu ko rek sànni da koo da koo jëf ndax am dégg nañ ci ak ab taarifkat mu naan ab liggéeyam mooy moom mooy moom ja ab liggéeyam mooy Mamoor Jaara yéen jaay Bàmba fayu yéene moo ëpp fayu jëf moo waral mu am Bàmba maam liggéey ga mu doon liggéey liggéey boobu moo ko may euh, Mamor Jaar waaye fayu yéene fayu jëf yéene bu muy amoon yéene xas bu mu xasoon li mu waxoon ne moo ñëwee naa fi naa naa fi jur xam ne bu ñu tuddee yonent bi tudd ko looloo ko may mu am kii nii mu am Sëriñ Tuubaa moo tax yéene dafa am solo yéene nee nañ fayu yéene moo fayu jëf kon ñun ñi loolu war nañ see mën a jàngeen maam fu ñu toog dañoo war a am ay yéene yu rafet fi mu ne nii comme fii kenn ku ci nekk toll nga ci dem dem kër bu ñu ko misaalee kenn ku ci ne toll nga ci dem kër ndax soxna Jaara nañ bi muy dem kër nee nañ fukki at ak ñett la am comme fukki at ak juróom liggéey fa liggéey bu rëy boo xamante ni kenn liggéeyu ko fi maanaam kon ñun ñi fu ñu toog nii war nañ nekk di di di di di toog bu ñu toogee ñun kese wéet di xo di xalaat lan lañ war a def bu ëllëg bu ñu suñu borom mayee borom kër lañ ko war a def te itam soxna Jaara may ñëwul nag may ko mu n'importe qui ndax bu bu baaxoon loolu tamit ñu may ko ci lëm duy fuuta wala buur yeeg yooyu kon du mën a indi sëñ Touba waaye dañ koo tànnal askan bu baax muy Mamor Anta Sali mi nga xam te ne jàngalkatu Alxuraan la fóore woon ci xam-xam ba nekk ba ba noppi nekkoon ab juriste daan àtte loolu moo tax nag ñaar ñaar ñaar ñu baax ñooñu booloo moo tax ñu mën cee am mën cee am ku baax kii di Cheikh